salaamaaleykum suñu mbokk euh, internet Dakar People tey ñu ngi fii sees ma maman Coura Macky yi ñu la baa ngi ah, maa fii maa ngi leen di nuyu di nuyu sénégalais yépp di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal bitim réew di ñaanal euh, sunu kilifa diine yeeg yu aada yi di ñaan yàlla yokk seen fan ñu gunge ñu ko ci kanam di ñaanal ki yàlla teg ci bopp réew mi ñu koy wax son excellence président Macky Sall ko ñaanal yàlla yan wi mu ko jox yàlla na oyof lool ci kawam di ñaanal yàlla sàmm ko sàmm njabootam gépp mooy Sénégal moom la fi yàlla teg di ñaanal réew mi nag du ma taay di ko ñaanal am na jàmm yàlla na ko yàlla yokku jàmm li am Sénégal amul benn réew ci Afrique soo xasee ba génn frontière bi rek boo dee sénégalais di nga xam ne senegal réew mu ñoŋ la réew mu baax la li ko ñaana la ngi nii tiim ñu ñoom ay mag yu baax yu fi nekk toujours damay wax ni senegal il faut ñu bàyyi sunu xel sunu bopp xam ni li ñu am benn dëkk benn kenn amu ko ci àddina mooy lan ginnaaw yàlla sunu borom bi subhaana wa taala daf ñu boole ak mag yu baax yi ñu won lislaam muy kan sunu maam El Hadji Malick maam borom Touba maam Limaamu Laay maam Khalifa Niass maam Baye Niass waa kër bu kunte yi canaba canaba yi daraame daraame ñun rek ñoo ko am loolu ñun kese ñoo ko am ci monde entier kon dañ ko war a téye bu baax booy xool léegi senegal am na tuuti euh, ngëmadi bu am ci réew mi te dafa am lu ko andi may wax rek ñun ñëpp nu fàttaliku ni am nañ loo xam ni kenn amu ko ci àddina ñu jàpp ko. macha allah am na solo li nga sàjj lan la li nga sanse nii. Ah, ah, ah, ah defar rek xam nga damay mag. sama benn doom bu ñuy wax Magita moo génn ak man fii ma ne ko damay def émission mu ne ma Mama Coura maa lay sañseel xaaral rek ma sañseel la nga def tukurool comme danoo aye waa ma def rek xaal pulaar ni rek danoo aye macha léegi jublu ci waxtaan bi rek euh, suñu première question mooy euh, ci Iran Ndao moom nga mhm. dafa feebaroon mais léegi yàlla may na ko wérgu yaram mhm. kii moo ko fay doon muy euh, suñu président mhm. Macky Sall yow loolu noonu noo ko kii waaw li may wax mooy mooy Macky ak Marème fay son excellence yi toujours lii la def te daf leen war daf leen a war des fois nag mu war la te doo ko def euh, Iran Ndaw dama fi amoon ak moom problème problème bi du politique du affaire Macky Sall dafay affaire sunu sëriñ dañu bokk sëriñ Babacar Sy man damay taalibe sëriñ Babacar Sy bu dëggu ni ma mel ci président Macky Sall nu ko raw laa mel ci sëriñ Babacar Euh, ma dégg muy wax ay kàddu yoo xam ne tegginewul jëm ci kër googu mu naqari ma ñu am problème ñu bari nag defe ni man ak Iran dañuy politique politique waaw dañu jotee ci sëriñ euh, président Macky Sall lii mu def daf ko war mais ana Bougane Bougane Gueye Dany euh, damay waxaat sénégalais yi ne leen weesu nañu fu ñuy naxee léegi su fekkee dañuy dellu ca temps ya mën nañ ñoo nax ba léegi mais damay wax ni nekkatuñu temps ya dañu nekk ci moment boo xam ne we moving on mooy dañuy avancer Bougane Gueye Dany toog di kàcc sénégalais yi yépp sénégalais yi Iran Ndao fu muy liggéey di ci Bougane gay Dany Iran Ndao contre na fi président Macky Sall ñépp di ko dégg Bougane gay barki démb Pape Ngagne invité na ko mu nekk ci social la dëkk toog ne nañu def conseil locale di màcc tuñ ku war a nekk njiitu réew naan nii di màcc tuñ def blazer def cravate booba Iran Ndaw a ngi dee ba mu demee dëkk booba di tabax xamuloon ni bakkan moo gën téeméeri junni yoon la mu doon tabax moom bugaan gay dani naa fekk bi borom ñetti jabari ndigam ni karaj trian bi kàccikat bi bugaan gay dani li muy wax fii ci Sénégal sénégalais yi di ko dégg di ko invité moo ma metti parce que dafa am ñoo xam ni signifié wuñu dara ci réew mi Iran Ndao feebar ba ñu jaaxle ba président Macky Sall jël Iran Ndaw moo mais nii la dëkkee sénégalais yi nañu yeewu naxaate bi doy na weesu nañ fu ñuy naxee président Macky dama wax sénégalais yëpp ni leen faruma ak moom man duma fan su président Macky Sall man dama ànd ak moom ci li muy def parce que dama xam ni réew di doxee su ma demul ci université bi jànguma it àddina yàlla moo ma jàngal moo ma yóbbu ci monde entier ma gis lépp lu waa université bi gisut jàng lu ñu jàngut mooy fii la ñu yem man àddina laa jàng warngal képp macha allah fa tabarakallah xam naa li réew di doxee gis naa réew yu tilim gis naa réew yu baax yi gis naa lu rafet gis naa lu ñaaw rey nañ nit sama kanam rey nañ nit sama taatu palanteer gis naa lépp bu may wax sénégalais yi bu nu ma xool nañu déglu man li ma leen di baaxe Bougane Gueye bëggul réew mi Sonko bëggul réew mi bëggul réew mi boo xoolee Bougane fi mu commencé ba mu commencé man dama ne ah Bougane mii day naw naa ko ndax ubbi na telem sama yoon newu ci fu mu jëlee xaalisam ah ku nekk yaa ngi def sa yëf ubbi na telem ma ngay joxe social jooni jooni ardoog yu kenn xamut bugaan ubbi ko fi di maye xaalis di def lu ne ay kamare maanaam duñ fay ko bugaan arrogant réew ba dof duñu fayeku am na ñu feebar ñu dul irandaw te fajuñu am na ñu yore bari luwaas te fayuñu ko Bougane gay Dany di wër rek di wonewu rek di fen sénégalais am ñoo xam ni këf moo leen di yóbbu Bougane Gueye Dany Samba Allaar la won na ko sénégalais ci Iran Ndaw Iran Ndaw kenn ku ne xam nga ni Bougane rek la bëgg. est def ko si suuf. def bu defoon Iran Ndaw wax ko Iran Ndaw moom lu sikk sikk sikk wax ko tu dëgg la yii nii moom Iran da ciy wax dëgg moom li tax mu toog Iran Iran toog su fekkoon nit a génn sax waxal ko mais Iran ngi toog ñaari nit toog Macky waxul. Marème fay waxul te bu ñu waxuloon amaan na ni kenn du xam ne ñoo ko faj mais dëggu génn wax te sunu borom bi tax ana bugaan mi toog barki démb fii ci Pape Ngagne Ndiaye di màcc tuñam di waxi consommé local naa fekk bi. léegi màcc tuñ mais xaw parce que xëy na dafa doyul ci jabar yi mi am. bugaan kenn ñëpp xam nañ li mu def su ma ko waxee sénégalais ne wax naa ko dafa biiral mais journalistam Iran ndaw mi yow tuddi woon doom ja Iran mu tuddi woon doom ja mu takk ko def ko ñetteel moo ko um nii jooni jooni ëf nambar daa ëf <laughs> ada silli ëf yëpp dem na lépp dem na ñu dugaloon seen xaalis toog ci internet bii di jooy sénégalais yëpp gis ko ay waay sénégalais yi mu ne keeralu xew sénégalais yëpp gis ñu jëloon seen xaalis investir ko ci business bugaan jooni jooni jooy nañu ba noppi bugaan dem di defari naan damay tibb tànku makeek bugaan sénégalais yi believe wuñ la niga we don't believe you am na ñaar ñu ma xam ñu nekk ci sa télé boobu ñu feebar bugaan mais dañuy wër di ñaan man am na ñu may dimbali dëgg rek laay wax am na ñu may dimbali ci tele bugaan bugaan réew ba dof di wax lu ko neex di macci tuñi di di di di xëcci blazer di waxi consommer local man mii ma war wax consommer local man war a wax consommer local man mii ma war a wax sénégalais nu jënd ci soble mbay mii bàyyi soble tubaab bi jógewu fi blazer te bu seer la sol Iran daw feebar mu sol lu seer loolu toog di màccituñ di tabax yu kenn xamut di def yu kenn xamut di wanewu ndax sénégalais yi ñi ngi xool ñi bëgg a jël réew mi su ma waxee damay wax bañu ma sonko am ñu may wooni ma kura yow bañoo sonko ñun dañ ko bañ ma ne leen man duma ma yu human biin parce que binduma ko mais jikko sonko moo ma intéressé wul day kay tout loo xamante ni parce que dafa bëgg a jël sama réew. te réew mi dama ci am wàll. Sénégal yi gëm nañ ko. yi ko gëm dañoo xamul li nu gëm. gëm man sama ngëm man su may gëm damay gëm koo xamante ne ni man li may won nii gis naa ko ci moom nit sax dafa lëndëm gaa mais Sonko daf ñu won boppam. commencement bi gis nga Sénégal. maa dafa am ñaan ñu believe ko believe wuñ ko Sénégal dafa am ñaan Sonko dafa génn mu ñu ne Sonko mu sell mi ma ne mu tilim mi mooy kotu yàlla bi muy nax jeunesse bi gëm leen leen loo xam ni ñu gëm ko mu ne day changer système bi dañu war a fuser ñoom lay Wade ñoom Abdou Diouf ay ñoom mais ñi nekkoon ci système bi xale yi ne ok lii lañu bëgg xam nga rek xale yi léegi sonko ñu teg ko ñu ne du nuyu jigéen ñu ne ibaadu la ndekete sonko mu ngi def ci suuf loo xamante ne ni il faut sunu borom woon sénégalais yi ni leen kii warut a réew mi amul complot jànq duma dugg ci yëfi caaxaan. aji saar vie privée dafay fekk mu mel ni ku mel ni yow wala man bëgguñu yor réew mi nuy wax rek lu neex loolu mën na ne ku mel ni ay ñoom Pape Alé Niang góor jigéen bi laa wax ma ne ko takkal say fer maa ngi ñëw ci yow ñooñu mën nañu wax mais Sonko dafa laaj réew mi Sénégal laaj ko du caaxaan ndekete booba Sonko ngi def yu bon ku ko mos def ci président monde boo ne ñu jàpp parce que li nga war a yor la ñu ne seize millions habitants kan moo la jiiñ viol nga bëgg a gérer seize millions ku am dix-sept ans dix-huit ans ne danga ma violé ñu ne ah est-ce que dëgg la man ñu njëkk a weddi ci la bokk man maa njëkk a weddi ne bu kenn dugal li sama groupe kaa leen wax leen yab mais bu leen dugal affaire viol yi baaxut Sonko génn ne du moom bind ci miiram ñu woowaat woo Sonko ni ko dem nga fa mu ne waaw mu dem génne li ci miir bi am nañu ko capturé sénégalais yi am ñu yeewu du ñu xam waa ji kan la mbete mu yore réew mi kii moo raw yaa yaa jàmme kii moo raw yaa yaa bu toogee Sénégal Sénégal barki arxuraanul karim Sénégal dina nu yuuxu bëccëgu ndarakam ndax mi ngi woon boppam arrogant mi ngi wone sañam mi ngi ñuy wan a ñemeem mi ngi ñuy wan a ñàkk xoolal ruube bi mu fi ruube barki démb benn rek laa koy ñëwal homme de loi yi militaire yeeg gendarme yeeg ñooñu muy saaga ñëpp sonko ñooñu ñoo ko gën ci réew mi ndax ñooñu ñi ngi ñiy sécurité moom mi ngi rey sunuy doom kon ñooñu ñoo ko gën ñaar Salif Keita mi muy tudd Euh, Alpha Blondy mi du Youssou Ndour africain bu mag bi africain bu mag bi africain bu mag bi ma waxaat ko saa yu ma toogee Las Vegas barke salaatul fatiha laay wax Youssou Ndour daf ma jaral waat ñaata at gisuma Youssou Ndour <laughs> sama maga sama mag la maa ko feccal disque dooram ba ko jële ki 92 du la woon disque d'or ba man la yóbbu international ba man Youssou Ndour ba ma ko gëj a gis yàgg mais dama ko naw damay toog léeg ci ay restaurant yu riis ay borom yi barke invité damay jékki-jékki rek dégg jàngi jàngaan soo màggee ber sa daar damay jékki-jékki sama bët yi di taa moom rek laay dégg mu Youssou Ndour rek laay dégg fu ma dem ci àddina ah daf may neex parce que damay toog foo xam ni man dong maa fay nit ku ñuul ma jékki-jékki rek dégg Youssou Ndour di way daf may jooyloo fu ma dalee ma jooy ci sama biir xol jooy nag parce que damay xam ni dama dama dama feer ci moom amul benn musicien africa africa laa wax ku Youssou Ndour doonul sa boos yàlla moo ko dogal kon Sonko Sonko mënul saaga ñëpp Youssou nit la boo xam ni Sénégal gi Youssou Ndour moo gën a populaire Macky Sall moo ko Alaaji ñoo gën a populaire makisal Sall su ma nee léegi Amérique di wax Macky Sall dañ naa ma who's that su ma nee Youssou oh, the singer we love him su ma nee alaaji ñu ne ma juufi Sénégal nañ leen ko nangul Sonko Youssou Ndour mooy drapeau Sénégal du moromu Salif kayta du moromu Alpha Blondy mais euh, euh, Sonko moom jeunesse bi dañ koo bëgg. bi dañoo bëgg lu ñu dañu bëgg lu ñu xamut. daf leen a xërëm ma waxaat ko sénégalais yëpp di ma dégg. Sonko dafa xërëm jeunesse bi. lii du jàmm jànq gis naa ko saaga yaayam ndax sonko yaayam woo ma di jooy saaga yaayam ndax sonko yëf yi la sa yaay bi la su ko jur nga saaga ko ndax sonko sonko yal na ñu yàlla atte moom yal na ko yàlla nasaxal parce que ku ne bëgg nga réew mi Senghor jaar na fekk Lamine Koura Gueye fekkeewuñ ko Abdou Diouf jaar na fekk sunu maam Ablaye Wade Ablaye Wade jaar na fekk Abdou Diouf Macky Sall ñëw musuma dégg ko saaga réew mi ñett ñooñu ñëpp ak ñi fi newoon ñëpp Pa Mansour Mbaye ak may dégg musuñu dégg ko saaga réew mi Sonko ñëw di saaga réew mi yëpp ku wax mu ne baaxul magistrat yi baaxuñu juge yi baaxuñu avocat moom ay rek a baax ndax lan Adji may wax sénégalais yi il faut ñu def attention bu baax parce que Sonko dafa bëgg Adji Sarr may wax président Macky Sall ngir yàlla ak yonent bi mhm. Atepa Goudia bi dafa naa fekk li mu war a def def ko Atepa Goudia bi dafa war a gis président Macky Sall ñu may Adji Sarr Sonko Adji Sarr ci kori tabaski bi passé dafa sorver fulio sonko seetaan ko fexe ba jënd verre fluo. <laughs> barki yonent bi lii kenn su koo gis. ma ni daf koy suivre. dafa toog ni Macky Sall da nga bëgg a rey Adji Sarr benn karaw bu génnee ci moom rek man ak yow la sénégalais yi dégguñu loolu. sénégalais yi dégguñu loolu. Atepa Goudiaby laay waxal nañ ma ko daggal lii ñu joxal ma ko na gis président Macky Sall ñu may Adji sonko pour wax ji fee. mais Adji Sarr damay wax ni samay waxak ak Adji Sarr hmm. euh, benn yoon laa mas a toog ak Adji Sarr mais dinañu wax téléphone hmm. xam nga lu tax sama doom 2002 la juddu sama caat Serigne Babacar si bu ndaw euh, Adji Sarr juddu 2002. kon sunu wax maak moom waruta mën a gudd yenn gudd yi doom la hmm. Adji tey bu nekkoon sama doom ji jigéen la mu yuuxu ne dañ ko violé ku ko violé Sonko ma man du ma taal Sénégal dama ma yeew île de île de serpent laay taal first of all lëg daawur laa njëkk a xeexal aji saar yaayam dundut ay rakk yaayam a fi ak papaam te samay mbokk kaw-kaw lan ndax sama yaay kaw-kaw lan dama ko ndax xam nga des fois boo nee kaw-kaw rek ñu ne da nga wax kaw man sama yaay kaw la waa Saalum la ñu jëli yëf yi tegu na ko fen defe naa mu nekk lu ma naqari bu ma sañoon suba ñu woo leen atte leen nit ñi xam fu ne parce que yëf soof na ci bopp nit ñi Sonko ngir ruube dafa tiit nag. bu fekkoon ni dañoo fekk Sonko euh, ni ko Sonko dañu la soxla fu ñuy wax Sweet Beauté dañoom rendez-vous mu dem ñu jiñ ko fa viol ñu ne ah Coura Macky ko fa woo noonu lañuy ñuy sadabee nit mais yow nga toppee xale bi fii ci Mamel mu daw Sweet Beauté nga fekk ko fa di ko def lu la neex ba mu sonn ba mu sonn laa wax dafa sonn dog a génn dafa sonn xam ni kii daf may nax mu génn wax sénégalais yi ne nañ ko ko nangul pourtant am na viol yu bari am na ñu bari bu ñu mënoon mënoon a wax am na ñu bari ñu ma woon ni ma kura Sénégal la dañuy rus sunu mbokk yi sunuy mbokk yaay yi mais kura viol bi ñu Sonko doon def ñemewuñu wax sunu yaay xamuloon ni dañuy liggéey foofu ñii naan sunu mbokk yi loolu moo am Sénégal bu doon Amérique ñëpp dañuy génn ñu ngi ko musa Bill bi lu ko dal quatre vingt ans la ñu tëj Bill Cosby quatre-vingts ans néga ba dem jeel parce que da daan violé xale yi ki war a def théâtre boo ñëwee balaa ngaa def mu tëdd ak yow ba pare ba mu kenn génnee lañ ñëpp génnee joxe seen preuve mais ñu dugal ko ci kaso bi mais pourquoi pas Adji Sarr nekk xale génn ne dañ ma viole Sénégal yépp ne déedéet Sonko ni Macky Sall la mais Macky Sall lu ci yoonam Macky Sall nan lay saribee Sonko su fekkoon ni ne Sonko taxaw na ni dem naa fa benn ñaar ñett sama ndigga doon metti ñu may def gere su yeew ñu ne déeta waay Sonko génn naan woo nañ ma dem naa sama docteur xool na ma feebaru ma feebaruma canceruma jabetuma naan am ah ah ñëpp di ko dégg sénégalais yi ñëpp lan moo xew sénégal yëf par par loola wala ànd la wala bëgg sénégal surux wala bëgg senegal dem kanam lan la ci ànd xoolal faruma ak Macky far day jeex duma fansam fans day jeex bu bàyyee kon dama koy baax dama ànd ak moom ci lii muy def ci réew mi may gis senegal xar kanam gi di suppiku ma waxaat ko sénégalais ñu ko keroog ma ma duggee ci terrain bi Sinaab yónnee ko samay xaritu américain dañ na ma welcome back home maa ni leen ban home ameen Sénégal lii la sama président bi defati <laughs> ne leen duma leen jëndal sax fu tubaab toog ba pare man dama leen di jëndal bu bees tax yéen ngeen njëkk ci toog président Macky Sall li muy def ci réew mi ah ku fekk ne sa xol taabul bañoo ko du mbañeel xam nga ni kii mi ngi góorgóorlu boole koog yaru boole ki teggin boole respect musunu saaga mi ngi liggéey dégg na lu ne te def na fi lu ne ma ne ko yaay defaan mbaayi président Macky Sall defaan mbaayi léegi ñu tamit waxtaan euh, yi passé. Mhm. ba jàngat élection yi mujj opposition bi li may wax mooy toujours ñoom seen problème mooy bëgg nañu di gagné mais bëgguñu <laughs> pouvoir gagné ñoom loolooy seen problème ñun danoo gore bañu fi gagné ci élection mairie dañ na tekk bàyyi la ñu doxal sénégalais yi wooteel Barthélémy Dias mu ne par force doomu politicien ba doomu Jean Paul hmm. bi fi wax lu ne Barthélemy bi lii muy wax nii waxet la papaam wax na fi lu ne Jean Paul Dias wax na fi lu ne bi saaga sénégalais yëpp rey doomu pauvre ndayam a nga ne ni kot toog pauvre yi ñoo ànd ak Barthélemy bi falaat ko waroon ko sanctionné moom moom lañu ñu waroon sanctionné moom rey mi président Macky Sall def ñu ne dañ koy sanctionné ma ne leen ay naafeq ngeen ñi votelul président maki Sall genn wàll gi yëpp naa feq lañu iblis lañ mi ngi def waaye nag gis nga yàlla nee naa des fois maa fi mën naa xëy ni tey dama lay yàqal fekk la may def ngëneel lay doon ci yow nañ ko xool ndank ni ko jàkk doomu ko ba yàlla def ko may yàlla won na ma ko barki arxuraanul karim salbe ndom maa ko gën a garaaw man salbe day gis dara jinne ji ko jommaloon ci diggante belleer bi man mii la barki alxuraanul karim salbe ëpp ma xam-xam barki yonent bi na ma tontu salbe dama jël ci moom exemple parce que dafay gis nee na weddilu ma ko ko mais ëpp ma xam-xam xam nga des fois nit dina xam ni tekk mm-hmm. président Macky Sall na ko sénégalais yi def ndànk te ko su demee maa fi yal na nu yàlla may wér nga toogaat fii ma waxaat la ne ni ma la waxoon sénégalais yaa ngi yuuxu. bu bés bu nu xefee ba Macky sàll ne baay baay. Mhm. ñu ne dañuy jël bandi cerveau yi jox leen réew mi. ñoom Sonko ñoom Sonko ki ay Barthélémy ay Déthié Fall lexu beñe ay ñoom xalifa sàll ah ndeysaan ma yërëm leen xam nga man ah, dama naw Karim Wade. Karim Wade ba mu génnee ci dëkk bi ba léegi nawloowul Sénégalais yi. daf leen daf leen mës a woo. danga ko mës a gis Sinaab. est que dawul tamit. dama ni la. daf leen nawloowut. Karim Wade dem na mel ne ni woon président la ndax bàyyi ma doon président xam na li xew senegal xam na ni dañu hypocrite dugal nañ ko fi baayam def na fi lu ne. Karim def na fi lu ne mais bañ ko bëggee xeex nii ñuy def président Macky Sall nii lañ doon def Karim boobu politique nañ ko tëj sàcc la nañu ko tëj Karim xam na lépp nawloowu leen woowu leen bindu leen ba muy génn dëkk bi tàgguwu leen amul leen ak yéen benn affaire ndax ay hypocrite ngeen Ablaye Wade di dund ñu jël doomam tëj sénégalais yépp d'accord ci surtout parti baayam bii nii tey di xiiru PDS ah tey Karim wadd lañuy wax parce que jommi nañu Karim Wade ngi ne tekk Qatar mës nga gis Karim jël avion dem seeti papaam ñu fotole sëb la la ko bënn ngi ci biir nan ni tekk nun defunu bu sénégalais yi dofee nun defunu Karim musuta génn Qatar googu ba mu demee ba léegi tax sëb la laka ba nangi ci biir ah. yi gaaw nan journaliste yi yàkkamti nan Karim ba mu jógee fii mm-hmm. ci daan la norme ca bàyyam la waroon a wàcc first of all mm-hmm. wala bu fanaanee katar mm-hmm. ci ëllëg sa mu seeti baayam mais Karim ba tey kenn amul photo mag Ablaye Wade ba mu ba léegi taxawul ne sénégalais sénégalaise amut naa fekk rek lañ def bés bu Macky sàll génnoon réew mi bu defee ñaari at ñu ne moo gën ñëpp na ñëwaat. Euh, waaw kay comme ni ñuy def sunu maam Ablaye Wade Ablaye Wade mënatul ñëw dañ ko war a bàyyi mu noppalu. mag muy làq téeméeri at dafa war a noppalu toog jaamu yàlla. ñu koy ñaanal ñaanal lañ ko mu gudd fan dañ koy ñaanal mu wér ndax dañuy ñaan ñun yàlla may ñu aju Ablaye Wade ba ñu mën ba mu ñëwee yoonam bi dama ni dama def benn vidéo ma ni maam ab Ablaye wàdd ñun dey dañuy déglu ci yow benn discours boo xam ni Sénégal dina ko jëriñoo ak monde entier bi yépp mu bàyyee ñu benn wax boo xam ni dina nekk ci sunu bopp yi ndax Senghor newatu fi Lamine Koura Gueye newatu fi ab Diouf a nga France moom mooy jaabante moo ne ci politique bi te yëf yi jaxasoo na discours boobu laa doon xaar ci sunu maam Ablaye Wade mais dañ koy ruube mag la di lekk xaalisam ñu war ko bàyyi mu noppalu ko Karim Wade bés bu fiilee moom ci boppam ne day ñëw day ñëw mais Karim moo ñëwut Karim moo ba Sénégalais fii ba fi nekkee nu mu ñu bari ñu àndoon ak bàyyam benn yoon lañ fa dem dematuñ fa daw ko abandonné ko Sénégalais yi Karim ñëwut bandi serve yi fi nekk bés boo ñu jëlee réew mi teg ko seen loxo dañu hungry ba pare angry sonko moom dafa tiit. mais ñu gis wàllu ñoom ñaar dañoo ay bandi lañ Sénégal lañu bëgg a jël naa fekk yi wër leen ñoom dàmbooj ñoo ñëpp bëgg a falu. 2024 mais yow 2024 bi président Macky Sall bu bu xoolal bu déposé wul candidat ma porte ko plainte man jigéenam bi de la xee Sénégal yëpp di ma dégg. Ah, ma ni président Macky Sall xaw ma lu ne ci xelam yàlla rek laay waxal. mais bu déposé wul candidat sénégalais yaa ngi may dégg bu fekkee maa ngi dund dama koy porte plainte ci kattanu yàlla de dee laa xee laa yóbbu président Macky Sall ndax sama réew mi dama bëgg mu ñoŋ. est que xeex du fi am. benn xeex du fi am nee naa la li ko ñaanal nga ko tiim. Hmm. li ñaanal Sénégal nga ko tiim du ñu mel ni Libéria du ñu mel ni kongo du ñu mel ni Mali du ñu mel ni Côte d'Ivoire. mukk ci àddina. dama ni la dafa am ñoo xam ne yàlla moo leen di samp li may wax ni na ci senegal ay bàyyi xel. dafa am ñoo xam ne yàllaa leen di samp Sénégal amagul ci loxo yu wóor yu mu nekk ba raw président Macky Sall mii moom laa wax de waxuma APR waxuma état bi président Macky Sall laa wax loxoom yii Sénégal gii mu téye nii moo wóor ci yow wóor ci man wóor ci sunu njaboot ndax lii ñii def nii bu yàggee xeex boobu ngay wax moom la ñu bëgg a cuq xale yi te du fi am du fi mës maa ngi fi maa ngi fi maa fi maa ngi fi du am. du am daal. incha allah nekk nga mm-hmm. ah, mm-hmm. nekkaguma ko. Mm-hmm. mi ngi ci loxo yàlla ma kii. Euh, président tous les sénégalais yi mi ngi defar pareegul su fekkee ni sama wërsëg mi ngi ci rek dina dinaa ko nekk su fekkee sama wërsëg nekku ci it sama position bii ma jël nii yàlla dong moo ma ci mën a dindi wala président Macky Sall wàcc réew mi waaye am ensemble boobu dama fa am parce que dañu wax pencu ndaw réew mi te ñi fa nekk dañu naa fekk ñi ma gis waxaluñu réew mi ñu ndaw réew mi. seeni bopp lañuy ñuy waxal. mais mel ni maam Diarra Fam. ah non maam Diarra Fam maam moom dina fa war a neex day war a neex parce que dama koy indi ci dëgg dama koy indi ci ñuy wax dëgg damay indi ñuy voté yoo xamante ne ni askan wi dinañ ci jëriñoo paa sunu bopp il faut nga il faut nga bañ a hungry pour nga nga mën a dem ci état il faut nga nga suur il faut dara bañ a fëq sa bët il faut nga bañ a tiit te dëgg rek tax la jóg nag mais bu ko yàlla dogalee moom mu am yàlla na ko yàlla dogal nag maa ngi koy ñaan waa ndax dama fa bëgg a taxawal sama réew. noonu lay demee mhm. mhm. bi nag ñu waxtaan ci temps yi nekkoon nga bi di xulloo ku mhm. mhm. euh, maak Iran dama ko wax sénégalais yi maa ngi koy ñaanal yàlla. ci barki sëriñ Babacar sama sëriñ di sëriñam mhm. yal ko yàlla may tan yal na ko yàlla may wér may képp ku tëdd wér man jotewuma ak Iran dara dara dara lu dem ci politique ndax Iran politique waa parce que euh, euh, fa jëmoon la wax naa la dama sori ci sëriñ Babacar Serigne Babacar turandooram nekk xalifa Iran ndeysaan ndeysaan àddina jàpp ko rek mais xam naa mi ngi koy rëccu mi ngi koy rëccu bu baax ndax kilifaam la di suñu kilifa ñun ñëpp am na wax yoo xam ni boo ko waxee sa kilifa. après euh, dina la naqari mais du lu ma ko jàppal te xam naa ni Iran Ndao sax est-ce que que Iran Ndao xam na ma sax man <laughs> est que Iran Ndao xam na ma man mais man xam naa Iran li ma ko bëggoon a tontu tontu naa ko Sénégal dégg na ko li mu doon wax wax na ko Sénégal dégg ko man li ma doon wax wax naa ko Sénégal dégg na ko mais xam naa ni dootu ko defaat te man it dootu ma ko defaat. maa mhm. maa koy ñaanal tan nag bëgguma mu dara dal ko bëgguma dara dal ko. Euh, est-ce que yow ko àq ak yooyu noonu seesi ko est-ce que loolu mun na nekk. ah non sequ maag moom ay baalante na maag Iran sequ ñu ay baalante wax la woon rek. Euh, waaw mu tooñ ma. ma ma ko. Mhm. fin na mhm. jeex na. Mhm. ma koy ñaanal jàmm mais mere naa Bougane Gueye Dany ndax euh, ah waroon na cee jàpp de ba Iran génn gërëm ko li mu def ñaaw na de Bougane Gueye Dany shut the aws sa wax bari na ruube gi ngay ruube sénégalais yi métti na ñetti jabar nga yor sa ndigg ni karaj ñi cotisé ca jooni jooni bokk ca te toog ci internet bi di jooy delloo leen seen xaalis bugaan gay dani nga toog ni tekk fay sa caméraman yi defar sa tele bii neewoon naa leen ay jamono doomu benn baas bee ko abal ay ay ay ay euh, eh, eh, ni nu mu tuddati Eh, eh, yii nii télé yi écran plan yi Bougane Gueye Dany du dara dama bëgg sénégalais xam ni dafay sóob ni néga bi day wër rek di bla bla bla bla di wanewu bëgg xale yi jigéen yi topp ko yooyu la Bougane di dox yooyu lay dox tekkiwul dara ci réew mi na borom yi te ñi mu nekkal